jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare TV wasaare làmb mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax fu ay mën a nekk ci réew mi ak bitim réew tey safoo wasaare rek ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di am kontante ak mbégte bu rëy rëy rëy rëy ci ndam li nga xamante ne am nañ ko bërki démb ndax vraiment Sénégal moom yaakaar naa ñett fan yi moom vraiment àdduna bépp Sénégalais Sénégal la ñuy waxtaanee. li ko waral nag mooy Lions yi nga xamante ne dañu dem jël Coupe d'Afrique bi nga xamante ne suñuy maam yàgg nañu bëgg ko fekkee suñuy papa wala suñuy nijaay ñenn ñi nga xamante ne vraiment yàgg nañoo ànd ak équipe nationale bi yàlla dogalul ñu fekkee ko. ba tey mbégte boobu dal jaamu yàlla yi waaye dawa rawatina population Sénégal gépp ñu leen di jaajëfal bu di féliciter Lions yi di leen ñaanal. lépp loo xamante ni bëgg nañu ko rek ci coupe du monde bii ñu jëm yàlla nañu ko suñu borom defal ñuy jaajëfalaat bu baax a baax bu ngeen gisee ki ñu toogal nag kenn du ko présenté ci réew mi muy sant yàlla match bi yaakaar naa bi ñu bi mu desee ci ay quart de finale wala demi finale quart de finale yaakaar naa huitième de finale ñëw na fi toog jël engagement bu rëy ne équipe bi day jël coupe bi loolu nag mu waxoon bari woon na ci ñoo xamante ni vraiment amoon nañ ci njàqare lan moo tax mu jël engagement boobu ginnaaw loolu dañu koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu waxtaan bi xam naa tey discours lay def sant yàlla maa ngi lay siyaar bu baax di la nuyu. Baye Jili nañ la. Mhm. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala rasulillah allahuma salli mhm. wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulilah alhamdulilah mhm. sant yàlla bu baax a baax a baax di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di kontaan si ñëpp nag di wax asalaamualeykum te di jéggalu ñëpp itam. Hmm. Mhm. di jéggalu ñëpp moo tax ngay jéggalu ñëpp. waaw jéggalu gi bi maanaam bëgg bëgg dafa foor. Hmm. àq dafa sew. Hmm. ñi lay bëgg yow en tant que kilifa. toog di xuloo ndax yow toog di dugg ci loo xamante ni ndax yow dafa dafa dafa dafa metti moo tax il fallait que tey boo demee wax benn wax ba tey suñ borom dafa la ci ndam war nga leen mën a jéggulu liñ ci daj parce que àq dafa sew ci diggante nit ak nit mm-hmm. di jégguluwaale waa groupe bi parce que tey amaan na tey loolu amoon bu defet amoon rek dafa la waale àq àq goo xamante guy dox sama diggante yi la mm-hmm. parce que vaar bu amee rek dan naa ñi ko jox micro la ah ñun koy suñu yoon newu ci yaa wax jël sa ay engagement wu bopp waaw xam boo déggee mm-hmm. dañ koy wax ñoom ci commande dañ naan xaw ma bën site la parce que dafa nekk loo xamante ni du cadre kilifa gi kese de. Hmm. mais day ñaawaale image groupe bi. moo tax àq àq dafa nekk loo xamante ni lu sew la. Hmm. moo tax fu nga jéggulu ak loo mën a doon ak sa doy du mën a toll foo toll rek da nga war di jéggulu parce que kenn xamut. Hmm. nit sa doy nu mën a toll rek lépp loo seqal sa moromu nit rek war nga mën a jiital ak njéggal. waaw. Euh, bi nga jëlee ay engagement dem ba sa kër ñu jékki-jékki ne suba la Sénégal di football moment boobu lan nga yëg ak moment boobu ci lan nga doon nekk ndax moment bi avant match bi di am rek commencé ngaa dem TikTok ñëpp di la xaar. waaw côté boobu moom avant match bi di commencé kooku moom damay sant yàlla bu baax. Hmm. ndax man xam naa li may xaar bu baax. parce que man dama nekk nit boo xamante ni wax naa la ko fii bi passé man dama nekk nit boo xam ne kàddu man moo ma sonal. Hmm. parce que sama kàddu xaalis jënd ko. Hmm. sama kàddu daf ma jaral lu nekk moo tax su xasee jóg rek dinaa def le tout ba li ma wax man mu am même bu muy jël di rendi sama bopp sax dinaa ko def pour li ma wax mu am parce que doomu aadama chaque jour li ngay wax danga ciy sóoraale ñi lay béggee ak hmm. ñi la bëgg surtout nga ne yow kilifa nga. dafa naa boo demee ba wax benn wax wax jooju fexeel mu doon dëgg. te man dafa am loo xam ne dama ko dépassé ci niveau boobu. Mm-hmm. bàyyi jiili. Mm-hmm. comme wax naa lii mu am niveau boobu dama ko dépassé. Mm-hmm. bàyyi jiili mën naa ne yaa mu njëkk jox micro. samay olof leerul nga ne ma waxeel nii defeel nii. boobu cas yu gënoon critique ci lañ daan wax te liñ daan wax dara du ci dañ kon lii jaaxaluñu ñun lépp lu ñuy wax rek daa am ñu koy teg. te daf ñuy jaral ñu teg ci suñ bakkan. match bi liggéey nga ci. déggoo bi sama kàddu jubee rek laa ci def loo xamante ni lu ma mën ak lu ma mënut dem naa ba jël sax mala di ko rendi hmm. mala boo xam ne nit amul fitu téye ko nii laa la wax loo man ma téye ko nii rendi ko hmm. jant fenkewul te fekk lu ma ci géej ndax bëgg def li ma bëgg a def ndax sama kàddu bañ naa mu nax saay bëgguma benn yoon ñu ne kii ci classement bi la bokk te man maa nekkoon benn sël sëriñ maa nekkoon koo xamante ni tey ji ñoom sëriñ sépp sépp sépp sépp maa leen war a suqali man maa leen mayaat maa leen war a may tur parce que dañoo ñàkkoon lu garaaw mm-hmm. parce que lu ñu wax ñu ne wax nga ma ko émission bi nga ne ma yéen seen yéen heure bu ngeen waxee ñu dóor équipe nawetaan bi équipe nationale bu Sénégal dëgg la may doxe wax jooju bàyyi ma ko benn yoon ma xamal la nii ñii ñooy borom làmmiñu gaa fi mm-hmm. te boo dee ndaw boo bëggee loo ñaan yàlla mu nangu la ko loo wax muy dëgg ooy falal sa bopp respecté di la mag. mais sëñ bi xam nga man ban côté laa sant yàlla. Mhm. mooy bu sëriñ si yëpp génnoon na équipe bi day jël coupe amaana mun naa bañ a équipe bi mun na sax bañ génn quart de bi dañoo def départ muus arrivé gaynde parce que moment bi sëriñ si yëpp di jël engagement naan équipe bi du génn sax quart de finale parce que footballul tax. mu doon quart de finale kon est-ce que yéen sëriñ si jàppoo leen ni di làmbatu rek di xool équipe bi ba xam mën nañu football mën nañu dugal tactique de jeu bi baax na ngeen doog a jël ay engagement man bi may wax ci équipe bi. Hmm. boobu boobu match de poule la. boobu laa jógee ñoom cees hmm. en direct fii. maag seet mii ñoo doon def émission bi. Hmm. ma di ko xamal ne ko. parce que man bu dee li ma gis ci équipe bi. parce que moment yooyu dafa am benn tubaab bu ma doon ci wàllu ngóora. Hmm. mbaa mbaa jàppandi rek. dafa wér loolu dafa moom. mu wér. bi mu hmm. wéree nag. Hmm. mu may ma mercure bu bari mu may expliquer lu bari ci équipe nationale bi. moo waraloon ma loon leeral yu bari fii. yu nit ñi xamul woon. ma def émission boobu toog fii ne leen carrément bu tappale amut buñ ko tegee ci yoon. ma waat ci yàlla ni coupe bi day ñëw. keroog bés boobu sama maam wax na ma sax ne ma li tax ngay waat. sa maam. sama maam ca Kaolack. Hmm. mu ne loolu lu tax nga waat. li tax ngay waat parce que da ngaa jël engagement bu am doole. waaw ñu dem ba ci jouru match bi ñu ne bëreet quatrième minute Sénégal am penalty Sadio Mané teg bal bi dóor ko rate ko moment boobu lan nga yëg. kontaan gu rëy a rëy rëy. bàyyi li ngay def Sadio Mané rate penalty bi ngay kontaan sëñ ñi ci stade bi ñëpp. Hmm. bu ñëwoon doon dóor bal ba dugg. képp ku dëkk Sénégal laa la wax. Hmm. li ma lay wax ne ñi nga xamante ni sax yóbbu woon nañ leen stade bi ñuy liggéey billaahi laa la waatal koo ci laaj ne ko ndax bal bii bal bi la nan laan du bii. ñi ci stade bi yëpp te dëkk Sénégal. ku ci hmm. wàccoon di ko dóor du dugg. mooy penalty bi. xam nga bi maanaam ñun yaakaar jiguñu ñun Sénégalais yi. Hmm. ñun yaakaar jiguñu. dafa am loo xam ne tojol lañ koy wax. dafa am ci làmb am ci football am ci lépp. tojol tey kii bu dugaloon loolu Égypte dinañu dóor 2-0. Moussa Niamane dugaloon bal. bu ko dugaloon. billaahi laa la giñaan. 2-0 hmm. dinañu ko dóor 2-0 yu leer nañ. lii maa la ko wax. non kon 2-1 lay doon. waaw 2-1. Hmm. gis 2-1. loolu bal da tojol la loolu du dugg ñii si stade bi yëpp képp ku dëkk Sénégal laa wax parce que dafa am ñoo sëriñ xamante ni am na loo xam ne responsable boo xam ne boo ko jëlulee. Hmm. tey équipe du dem ba tollu fenn nga bëgg sa poche fees wala sa biir fees nga naan équipe bi dina dóor 4 bi 3 bi sarax bi fii génn fii si wax yoo xam ne tegoo ko fenn yow xamoo sax li ngay wax. Mhm. loolu moo tax genre yooyu foog nga tojal am na yoo xam ne boo ko jëlee doo bàyyi dara mu mu senn. Mhm. nga tojal làmmiñ yooyu tojal boo gaay yooyu boo leen tojalee ba pare nga def li ngay def parce que Sadio Mané foog foog nit ñi fay ko borom. Sadio Mané dafa def rôle boo xamante ne Macky Sall mi toog ci réew mi dafa ko. déet li mu def. Hmm. Macky Sall mi toog ci bopp réew mi dafa ko. lan la Sadio def lu président demal dëkkam Bambali. demal Fatick. la def Fatick. bu du lu mu fa def ci alalu mi la. na ko lampe mu leer. defar na fa tali ba mu nekkul président. déedéet. demal dëkkam. Hmm. boo demee dëkkam. Hmm. nga avant. ak léegi. di nga xam ne kii waxuma la président de. waaye buur sax jar na koo jox. macha allah boo demee dëkkam Bambali. yow sa mm. xol day seet da ngay fier ci xale bi. Mm-hmm. waaw xale boobu nag tey jii kooku il fallait que il fallait que nit ñi fay ko borom. ñu ñëw ci biir match bi match bi bi muy daw ñu ci bari ci sénégalais yi jàppoon nañ ni dinañ rey Égypte ci ci ci ci ci ci ci match bi. mais ñu dem ba prolongation xelu Sénégalais yi di gën a téey ñu dem ba série tiro bi moment boobu moom sëñ bi waxal rek yaakaaroo woon ni Sénégal dina ci génn. billaahi laa lay mhm. kii di Matar Ba message bi moom la ma koy lancé. Mhm. nag sa wax ja mhm. gis nga bi demee ba yëpp yëpp xel yëpp teey billaahi laa la ñi may seetaan nii ñii ñuy seetaan ñi mu ci woo ne ma sëñ bi yaa ne woon si coupe bi day ñëw ma ne Matar ba woo ma ci numéro koni ne ma ah yaa ne woon coupe bi day ñëw te bu ñëwee naa yëkkati nangam teg ko sa loxo. Matar ba moo la ko wax ministre des sports. ah man si public laay waxee. Mm-hmm. te man nee naa la man sama kàddu du mbindeef ci kaw suuf mu ma jaral ay fen. du dërëmu doomu mooy tax may wax lu ko neex moom. Mm-hmm. bi ma wooyee na ma kat ah yaa ne kat coupe day ñëw yaa ci des parce que ñii nee nañ ay 4 bii 3 bii yooyu amul. gannaaw nag yaa ne woon coupe bi lay ñëw mi ngi noonu say loxo bu coupe ñëwee léegi lii di nga ko am mën na ko demal bu sooba yàlla comme ni ma leen ko waxee woon coupe bi day ñëw amaat sama beneen nit ñu ngi ko njega woo ma sëñ bi ah ñu ngi si série de ma ne ko billaahi coupe bi day ñëw boobu sama xel dal na parce que dama fenloo bëgg a fenloo yéen a ñi toogoon ci télé yor seen kurus tim seen écran di indi yoo xamante ni yow yow sax doo doo comprendre. Mm-hmm. boo sama xol sedd parce que xam naa li ma daj man. Mm-hmm. pour sa bañ sama kàddu ndax saay du man kese nag maa ñaanal kii bi kese de. dëgg la que lu ma ci daj benn am na ñoo xam ne dañ nañ ci téeméer. dëgg la. dañ nañ ci téeméer waaye dafa am ñoo xamante ni foog nga tëj seen làmmiñ. Mm-hmm. léegi après ñu dem ba tiro bii bi. ñu dem ba tiro bii. bi demee ba tiro bii ma def li may def. biñ ma woowaatee ma ne ko jeex na match bi jeex na. yow yaa ngi doon seetaan match bi. boobu seetaan moom bi parce que boobu noonu maa ngi ci biir ndox bi te benn xaj di ko rendi di am def. Hmm. waaw. si sëñ bi sëñ bi est-ce napp rek boo bëggee mën naa la ko may en direct ñëpp di ko gis. ëpp naa def. yi ma nekkee ci géej géej li ma xaj bi yëpp mën naa la ko may man aw ragalu ma yooyu de. man hmm. nappaatoo ma. Hmm. lënd moom bëtu kenn man direct bi laa lay wax. Sadio maane dugal gañe bi sëñ bi Sadio Mané du moo dóor bal bi te Sadio Mané ñëpp xam nañu ni muy dóoree penalty penalty boobu sénégalais yëpp manko dóorandoo bal bi. dama lay jox cinq góol mënuñoo jàpp bal boobu. dafa balu tojal dafa am. Hmm. mooy bi mu njëkk a dóor dama ne la Sadio dóor kotu penalty la dóor kotu coup franc la dama ne la foog gaay fay ko borom. Mm-hmm. te dañ ko ko fay force si loolu noonu saa yow mënoo di jël sa bakkan di ko tey la ndax ay nit ba pare suñ boroom di la di la xañ yenn yi mënta nekk mm-hmm. xoolal ñaari bal yi nu mu jógee xoolal ñaari bal yi laa nu mu jógee de mm-hmm. bii ndox la jógee bi muy jóg ndox bu koy dóor da ngay gis ndox mi nu muy jógee waale bii boo ko xoolee buy jóg àndul ak dara ñaari bal yi bokk da ngay xool parce que bul toog naan ku franc bi planti bi de da ngay xool bal bi nan lay jógee dafa xam loo xam ne du ay wax toog yor sa kurus wala yor ay nen yor sa lii di wax de da xool bal bi na bal bi nu mu jógee lii ndox la wala lii safara la. am na solo léegi ñu ñëw ci sa gaa yi xaw ma nag bu ñu demee lan la ñuy wax waa koñ ba. <laughs> borom du génn dem quart de finale du dem massa de poule am na ci koo xamante ne moom nee na ba ilaa yow mi din abadan Sénégal du jël ko kooku moom xaw ma nan lay xoolee waa këram waxuma koñ ba de waa kër gi. <laughs> ñooñu noonu boo leen gisee ñoom ñëpp ñu génn def sorti lan nga leen wax. waaw ñaanal leen yàlla rek. ak sama xarit kun Kande kun woo ma waay la mu la de bëgg naa nga ñëw toog yow sama xarit nga woo ma <laughs> leen di ñaanal ci yàlla. Uh-huh. xam li tax ñaanal leen ci yàlla. Hmm. dafa am ne bu këppoo sa kaw musiba bu këppoo hmm. la fi mu toll dafa seen kaw. Hmm. da leen di ñaanal ci yàlla. yàlla biddi leen waat. ay nit ñu réer lañ di leen waxaale ne leen nit ki doomu aadama hmm. bu dul sa xam-xam sax doomu aadama yàlla dana la demel ñaar yi hmm. muy am ak ñàkk dëgg la ku dul am hmm. doo mas ñàkk réew mi même bu ñu la fayoon ay milliards pour nga yàq équipe bi sax jëlal milliards yooyu da nga def sa rôle rôle sëriñ patriote nga autorité nga citoyen nga bul xool xaalis bi xaalis bi day jeex dafa li nga xamante ni tey ji mooy indi jàmm sa réew. Mm-hmm. dafa li nga xamante ni tey ji mooy boole ay nit. te bu fekkee ñaankatu yàlla nga da ngay xool ne réew mi fii la toll nga natt ko. Mm-hmm. boo ko nattee la ca war nga def ko ci. après góor yi buñ xamee yow li ca daj dañ la revenir. Mm-hmm. am lu ñu jëflante ak xam na bi ngay def lii. dafa am circonstance boo ko doon defee. mais lan moo tax génn def engagement équipe nationale bu mu dool ni équipe nationale bu Sénégal même bu dee da gis ni day toogee quart de finale wala demi finale sax au moins nga bañ ko wax parce que boo ko waxee stress bi ngay teg ñi ŋànk équipe bi rawatina sénégalais yi nga xam ne amoon nañ yaakaar ci équipe bi sëñ bi. ci borom xam-xam waaw bi maanaam loolu ñaaka xam la ak réer dafa bari ci si sëriñ yi dañu dañ na xam-xam boo yemul fi nga war a yem. ci li nga mm. xam. Mm. daj loo war a daj souvent di nga gis sëriñ liggéey benn quelque temps dootoo ko déggati. Mm-hmm. di nga gis tey ku siiw ay boo ko gisaatee day wow koŋ. dëgg la. xam nga loolu la ma koy waral. Mm-hmm. parce que ñun dafa am lu ñu rax. Mm-hmm. dafa am lu ñu rax yaa ngi dégg tey ji du ñëpp ngay faj du ñëpp ngay laal. dafa am loo xam ne bu dul sa domaine boo ko laajee rek. la la la. léegi ñooñu loolu leen ñuy wax sa morom Serigne Sow nga xamante ni fi mu toll nii bu doon làmb la ñu ne yenn nañ leen ba ci kaw dóor ci suuf sëlëm lan nga leen di wax. ah li ma leen di wax moom mooy daal bi maanaam daal amuñu lu mooy réew mi te jàmmu réew mi mooy suñ jàmm. doo leen yedd bu ëllëgee ñu bañ a waxati loolu nga leen war a wax sant yàlla. parce que yow sax wax nga da ngaa rëcc rek mais bi sa ngi ñëw de. de jiir rëccu ma xamala moo tax. Hmm. jili nee naa la man yaa ma njëkk a jox micro. dëgg la nga may orienté. si mm. kilifa. Mm. samay olof leerut. Mm-hmm. nga ne ma sëñ bi waxeel nii. Mm-hmm. jëfe lii kon man may wax muy am du tey loolu yow du du loo xamante ni tey la. dëgg la. yàgg na. Mm-hmm. man làmbatuma mais est-ce que du boo waxee cent bi sañu ñëw quatre-vingt-dix-neuf bi ngay wax de. déggoo lu ma la gis nga mbirum sëriñ. mission la bu jeexee. comme xalifa général. Mm-hmm. bu sa mission jeexee. Mm-hmm. bu fekkee nag yow da ne lii lii nii nag damay topp neex neex bi rek. Mm-hmm. boobaa nag boobu si la la yàlla di seetaan nag yàlla day samp mbërëm. at moom day nekk atam lu la ci wax du dañ lum la lu ci def du mu ne léppay nekk de waaye lu néew moo ci yàqu. loolu nag sant yàlla du lu loo xamante ni lu ñuy bàkkoo la wala dara. te sëriñ yi ñoom it jikkoy kilifa dëgg. Hmm. kilifa benn du bon xol. dëgg la kilifa xolom day oyof ba mel ni perkal. dëgg la. duut ku la wax benn baat nga yëkkati sa xol. dëgg la. nga ne naa ko def lii wala naa ko porter plainte loolu yëfi kilifa. dëgg la. man sëñ Touba mbalitam man moomu gën. Hmm. maam Seydi El Hadji Malick mbalitam man moomu gën. Baay Ñas mm-hmm. kazalika mbalitam moom a gën mm-hmm. maam Limaamu Laay naka noonu naka noonu mm-hmm. waa ñooñ seen mbalit man moo a gën tey gi gannaaw ñoom la ñuy saaga waaw man bu ñu demee man mu tuuti mais jaamu si yàlla mi nga xam ne maa gën a tuuti si si kattanam bi ñu muy joxe man la ñuy saaga loolu damay sant yàlla bu wér a wér a wér a wér lu ñu naan def samay maam te samay maam seen mbalit man gëm gën ma man seen sët bii bi ci gën a xeebu ñu saaga ma dama lay gën a ñaanal si ñu leen di saaga ñan la ñu ko ñu torox te souvent nag foo fekk ku torox ku alko day am jàmm dara du ko sono waaye buy dee dara du ko rey pistolet du ko rey du accident si oto kër du ko si kaw li koy rey si biir yaram bi lay nekk ngacc ko ba mu xëy dee xool leen bu baax ñii di saaga ña boo leen gisee dañuy wow di waw di wow ba xëy dee dara du leen rey nag moo tax sama mbokk sëriñ yi di merci ñi leen di saaga ak di leen loolu loolu du dara. yow moom ku la saaga baal nga ko xanaa. man. Hmm. déggul ma la man sëñ Touba Mbalitam moo ma gën. waaw ah, d' accord xanaa ku la saaga kon baal nga ko. ma ma déggoo. boo ma saaga man boo ma saaga. Hmm. boolaay dama koy sante yàlla. waaw loolu xéewal la lu ñuy def say maam. Hmm. nga gis leen ñu nekk si ñaam yow bu ñu la ko defee loolu sant yàlla xéewal gu rëy la. Ah, loolu de sant yàlla ah. ay borom barke nga leen ñoo xamante ni yow tey jii dañoo liggéeyal yàlla nga leen di saaga. waaye yow yow mi nga xam ne yow yaay sët bi gën a tuuti ñu lay saaga loolu sant yàlla bu rëy rëy la kon am na suñu borom lu mu cëre lu mu la cërale lu rëy. match yi match yi jàll na actuellement nag léegi ni bàyyi ñu dem arène nationale wala Ibamar ñëw rëccëg ki rëccëg cëg cëg cëg rëccëg cëg mbër yi ñoo xewle fi mu toll nii làmb yi ngi ñëw. Mm-hmm. guy gi rëg rëg Bombardier yi Eumeu Sène Serigne Ndiaye 2 euh, Cobra. Euh, Tafa Mbër ak ak Liss Ndiago Laurent bu Siteu combat yoo xamante ne ay combat yu neex la làmb yooyu juqee goo ci dara gisa goo ci dara. waaw xam nga souvent na tamit du lu ñëw rek nga ne ci sabañ. Hmm, yow doo def lool. du lu ñëw nga ne ci sabañ. yow doo def lool. non non. <laughs> ay sëñ bi maa lay bëgg a bëgg nag sama xarit bi wala bëgg. xam du xew bu ñëw rek nga ne sa xewa. dëgg la. bu yàggee xew la ñu xew la. dëgg la. doon paaka ñaari boor bu yàggee nga doon seytaane wala nga doon naafeq. Mm-hmm. nit ki. Mm-hmm. da am loo xam ne da nga yem. du ne chaque jour nañ laa dégg. Mm-hmm. ci dara déedéet. chaque jour ci lii chaque jour ci lii loolu loolu bi maanaam. du du du yëfi góor. góor moomul loolu te sama maam daf mënoo moytuloo ñeenti façon wax yi. Mm-hmm. ci gor ma gor na moytu ñeenti wax yi. Mm-hmm. wax ji nga xam ne da koy wax ngir biiram wax ji nga xamante ni da koy wax ngir poosam. Mm-hmm. ak wax ji nga xamante ne mu ngi koy wax ngir bëgg ñu gis ko ak wax ji nga xamante ne da koy wax ngir bëgg ñu dé dégg ko. loolu loolu gor da ko war a moytu. te yow gor nga. gar mi nga da nga bokk fu baax. lu ñëw ñu dégg la si. te sant yàlla du lu ñëw ñu dégg ko hmm. waaw. du lu ñëw rek nga wax ci. déedéet kon ay mbiru làmb yi doo ci wax. non non sax non non non wallaay man nga maa nag ci làmb parce que man damay yóbbu mbër làmb ay mbappat ak yëpp. Hmm. mbër yu champion yuy toj. bu neexee mën naa laa jox ñoo xam ne ay sëriñu mbër lañ. Hmm. mën nañoo seede loolu maa nekk seen ginnaaw. ay sëriñu mbëri yu mag nag. yow mi mën naa laa génne seen image ñu jàllale ko jëli man nee naa la lépp lu ma lay wax man nee naa la lépp lu may def ragalu ma ko wala lépp lu may wax rek séntu ma ci dara parce que man li man gor laa. Mm-hmm. gor. Mm-hmm. man waxee ma ngir xam nga li gën a neex si nit yi. Mm-hmm. bul imposer sa bopp nit ñi souvent na lay nit ñi di imposer seen bopp. si lay dàqi. léegi am na solo kon léegi doo wax ci ci ci match bi ci làmb ji ñu ñëwaat ci match bi ba tey duñ ci jóg qualification coupe du monde Sénégal Égypte actuellement fi mu toll nii aller retour la aller bi Sénégal ay dem retour bi Égypte tey ñëw noo ko gisee dinañ qualifié duñ qualifié li ñu waroon dóor Égypte dóor nañ ko yaa bu gën a xam daal. waaw kooku moom dama koy bàyyi ak soppe yi. soppe yan. soppe yi parce que li ma leen tegoon ci coupe d'Afrique bi dafa metti Hmm. ku ci mel ni Mouhamed Sandaga. Mouhamed Sandaga. naka noonu ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Ah. dama leen tegoon loo xamante ni ndeysaan tey dafa dafa dafa dafa nekk loo xam lu diis la. Hmm. moo tax lii dama leen koy bàyyi ñoom soppee bu ñu ma joxee ndigal ñoom bu ñu ma joxee ndigal. nga waxaat ñu ne ma sëñ bi yow la ñuy déglu wala ñi nga xamante ni. doon nañ dem ci commentaire yi di wax lu négatif. Hmm. ñoom laa bëggaat ñu revenir. Hmm. ñu ne a sëriñ bi yow lañ soxla ci lii. nga wax ci. buñ ma ci soxlaa. Hmm. ba ma def ci li ma ba xool. ma doon lañ cee wax. kon sant yàlla actuellement mun nañ ne daa am staff wala dafa ay kilifa yu muy déglu. waaw même bu dul kilifa sax sa nit ñi lay bëggee parce que bëgg nit dafa metti ji lii. dëgg la. surtout nga doon kilifa. am na am na wax yoo xamante ni si kilifa sa nit. gis la ñu la koy ŋàññi dafa neexul. dëgg la. neexul moo tax foog ngay bàyyi xel ñi la bëgg daf si am solo bul xool yow sa bopp de xoolal ñiy sonn ndax yow ñi la bëgg. jar naa hmm. daw ba dee. dëgg la ak daraja joo mën a am baatin boo mën a am ñooñ day baax nga leen di bàyyi xel. Hmm. mais sa option bopp na am xaalis. parce que ñii ñu ngi dang dang ndax yow. am nga xaalis yow. sant yàlla ah sant yàlla de. man maa bu baax de. waaw yaa am nga xaalis de. maa ngi sant yàlla bu ah, eh. bi yow boo toogee sa téléphone bi day sonné rek du xaar benn yoon appel sur appel ñi lay woo fan lañ nekk ci réew mii bitim réew wala lan la lan mooy seen soxla lan moo tax ñu lay woo lan nga leen wan ba ñuy continuer di la woo. waaw si njub ak kóllëre ak dëggu. moo tax ñu lay woo. waaw ah, parce que kóllëre moom mooy lépp si àddina njub ak dëggu ak kóllëre gu sax rek. xam nga booy jëflante ay nit wanoo leen ne carrément li may dund génn du alal kóllëre la parce que ku ma siy jëflanteel boo ne ma faju dama na naan man faju ma la kese yem si de dama bëgg suba nga taxawal dara maa ngi nuyuwaale sama xarit Mamadou sa Espagne Ibrahima États-Unis royaume ñoom ñëpp. ci nekk tey jii. maa ngi nuyu ma Abdou France. ku ci nekk ci ñoom tey ji maa ngi koy siyaar bu baax. na ko noonu waa États-Unis maa ngi leen nuyu. Hmm? Hmm. ku ci nekk tey am na loo samp man lay liggéey. Ousseyn maa ngi koy nuyu bu baax sama xarit bi. borom États-Unis Ousseyn. <laughs> Euh. jiili. Mm-hmm. ñaan. Mm-hmm. du wutukaay xaalis. déedéet ñaan yàlla rek. danga naan ñaan yàlla rek. du wutukaay xaalis. wallaay dégg naa dëgg sëñ bi. ñaan ñaan mm-hmm. sama maam mu ne ma lépp loo ci am rek delloowaat ko ci nit ñi te yow yaa ngi def loolu yow xam nga ci dara du loo may laaj déet man bëgguma xam Sénégalais yi ñoo bëgg a xam waaw xam nga tey dafay dafa am loo xam dafay neex mm-hmm. yow nga xam ko ci nit ki mm-hmm. nga taxaw nga ne carrément lii xam naa ko ci nit ki sëñ bi dama lay wax lenn pour nga xam ko Sénégalais yi ñi lay seetaan tey su ma jékki-jékkoon na sant yàlla mu ngi def lii xalaat bi ñu am ñoom ñëpp mooy xalaat bi ma am man mooy sant yàlla kat am na lu mu ko ceebal am na lu ko defal te man bëgguma wax lenn bu ëllëgee ñu ne noonu. nduru li mu wax du dëgg wala deme na neen xam nga dañ ne nit ki. yow yaay leeral àdduna bi xam nga tey nit ki. Mm-hmm. ki ko mën a seddal mooy ki ko jege. dëgg la kuy gis li muy def. Mm-hmm. di ko nëbbu mais ki la jege du ko mën a nëbbu parce que xolam xolam bu dee lu baax la. Mm-hmm. bu dee du tricas du dara. sant yàlla am naa opportunité boo xamante ni mën naa dem waxuma la yow bàyyi jiili. Hmm. mën naa dem si ñeneen ak ñeneen comme ni ñu ko gars yi di defee. Hmm. ñu parce fii loolu ma fa am Dakar dañuy jël sëriñ sponsorisé la jox la apartement jox la oto bu baax ne la del dawal ñoom ñoo lay booleeg gars yu baax yi. Hmm. lu ngeen liggéey ngeen xaajoo ñu lay jox ay nit nga leen di fay ñu lay defal vidéo man am naa opportunité boobu pour def ko mais sama liggéey dafa nekk lu jublu tegu. yaa ngi dégg maa ko bañ sax man la may def bëgguma nit sax di si toog di ci def débat waaye dafa am loo xam ne boo ko xamee si nit yow. Mm. bul xalaat lay nit ñi di wax de na tegu ci njub rek doomu aadama ak ci lépp loo mën a ne sa waxin bu dëggoo ña koy déglu xam nañ. Mm. bu dee ay fen itam ña koy déglu xam nañ moo tax yow bul xalaat ñoom lañuy ñuy xalaat xoolal la ngay wax rek mu doon lu dëggu ci yow. am na solo. maa lay jaajëfal bu baax kontaan naa ci teew bi nga fi teew ndax xam naa ni sa teewaay fii ci wasaare bettul ñu bari ndax xamoon nañ ni ale boo gis am na retour waxoon nga aller bi retour bi ñëwaat nga maa lay jaajëfal bu baax a baax. Ah, waaw di ñaan ci réew mi jàmm yàlla jàmm ji fi ne mu saxal ko fi. amiin yaa rabbal aalamiin. te de xam ne nag ku bi du ku bu gouvernement du ku bu dara. ku population bi la ak borom xol yu baax yi. dëgg la ñi nga xamante tey seen mébét bépp mooy coupe ñëw ci réew mi. Mm-hmm. ñoo ñoo tax coupe bi ñëw fi mais du coupe politique du coupe bi dara waaw di ñaan nag ci réew mi jàmm. Mm. yal na fi jàmm ji mu fi commencé ne yal na ko. jàmm moom commencé naa dem nañ ba gis opposition beeg parti pouvoir bi mel nañ roog suukar fi mu toll nii. Mm-hmm, mu suukar. Mm. yal na ko yàlla saxal mu continuer noonu. parce que mm. ñun loolu lañ xam jàmm. Mm-hmm. da nga laan gis tubaab yeeg façon. xeet bu nekk daan ñëw ci réew ndax jaamu jooj hmm. kon yàlla na ko fi yàlla saxal ba ñëpp di daw di ñëw hmm. ci yàlla di ñaan ci réew mi jaamu daal asalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf jërë mbokk yi seetaan wasaare TV di leen jaajëfal bu baax sant yàlla lañ dalaloon ci waxtaan boo xamante ni waxtaan bu am solo la dégg ngeen leeral yu am solo yi nga xamante ne indi na ko jotoon na ko wax ci mat match Sénégal US ñu koy jaajëfal bu baax di ko ñaanal jàmm te di ko sàkku ci moom di leen jaajëfal di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew jërë ngeen jëf.